معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقاه هاج قصائد يا قلب كل من له سعادة ولن خاد الأمن maaleykum soxna si ñoo ngi leen maaleykum salaam maa ngi leen di fay bu baax naka ngeen gisee ndigalal sëriñ bi ci màggal xasida yi xanaa di ci sant yàlla te di ko rafetlu bu baax a baax a baax am ci yëg-yëg loolu nag waaw waaw ñu ko ci amee groupe bu baax a baax a baax. Euh, naa kewe di membre daara Mafaatihul Bichri Touba. ok. lan mooy sa yëg-yëg ci ndigalal sëriñ bi. Euh, di sant yàlla bu baax a baax di am mbégte bu baax a baax euh, tey ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko muy liggéey boo xamante ni yàgg na koo santaane ñu yàgg koo fekkee di ñaan muy ñu koy fekkee yu bare bare bare. ñaan suñu borom yàlla ko fi loolu te wéral ko bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waa ndigal li moom Serigne Mountakha day yërmandey kese yoo xam ne daa jëmmal leerug Serigne Touba ci kaw suuf tayit solution bi ci àdduna xam na ne xasaayit kese la moo tax mu woote bisub xasida di bisub sant yàlla ndax gis na xat-xat yi na ci àdduna jafe-jafe yi ak gàllankoor yi te dara mënu ci saafara lu dul xasida Serigne Touba yi ndax fa ko borom doon liggéeyee fa mu taxawoon di ko liggéey keneen ku fa taxawoon ku dul Serigne Touba lu la fay jëlee ngay wax waaye dootoo la bi di bay maas xat-xat yi ko Serigne Touba doon bind nag ba am ci ngërëmal boromam dem ba taxaw sañ a ñaan borom ne ko may ma lii may bind ma di ko toxalee ci sa àlluwa ji loolee du lu ndaw lu lu rëy rëy la sunu borom may ko ko mu sañ koo bind daal ne uktubu naaxilan min lawxi wa min alanihi wa fi xurufi lan alin loolu la Serigne Touba wax kon loolu day wane ne rek xasida yi du lu ndaw ndax fa muy tuxoo foofa dafa kawe ndax fa suñu borom di bind fa la Serigne Touba di toxalee am bindam motax bis bi Cheikh amadou muntaha woote ko yàlla na fi yag lool ta ànd ak wér ñu yakko ko ànd ak moom di yërma day kessé waaye yene a bi yëpp jàmm rawati réew mi nga xamné moy mooy réewum Sénégal. sante Serigne Touba sante si ñaari wajjo di rafet lu baax ndigal li nga xamanteni mi ngi soxe ko ci Serigne muntaha mbake di ko lu bu baax a baax ndaxte amuñu ko do Serigne Touba kon Serigne muntaha bu woté ne. ñoo leen sant lema ñu màggal xasida yi loolu dañ koy rafetlu bu baax a baax di ci ànd ak sëriñ bi rek lépp loo xam ne sëriñ bi rek kàddoom rek la ñuy diglu lépp loo xam ne rek santaane na ko rek ñun loolu rek ñu jug ñu dox ko rek mooy suñu waruwaay di ko rafetlu bu baax a baax di santaan yàlla ba wér a wér bi ñu yàlla booleeg sëriñ Touba. sëriñ Touba daa universel sëriñ Touba fa mu taxawoon di ñaan ñaanalu toon ahlu murid kese ñaanalu toon euh, euh, ki nga xam ne daa bokk ci moom kese waaye dafa bi yëpp. mboolem kuy wax ashadu an laa ilaha illallah ci Serigne Touba nga bokk kon Cheikh Mouhamadul Mountakha li mu def loolu rek la war a def mooy boole jullit ñëpp ci waxtasimu bi hablillahi jami'an waaye wala tafarraqu sa kaddu gu mujj kaddu gu mujj mooy santaat bu baax di sant bu baax Serigne Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal suñu borom dooli ko fay yàggal waaye di siyaar bu baax xalifab Daaru Xudoos Serigne Ahmadul Maxtaar suñu borom yàggal ko fi lool mu ànd ak ku wér waaye Serigne Abdourahmane Mbacke xalifab Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke de Fatma moom it ñu koy ñaanal bu baax mu yàgg fi te wér ba yéene am ci liggéeyal Serigne Cheikh way juram suñu borom defal ko ci lu kawe njortu di ziar mbokki talibé wilaya yëpp di leen ziar saa su liggéey bi ngir doomu aadama yëpp man di ci jariñu loolu tawfeex ju kawe la yàlla nañ ci dëppoo ngërëmal suñu borom di sant yàlla bu baax a baax rek di sant yàlla bu baax a baax mu suñu yàgg koo santaane ñu yàgg ko fekke te yàgg koo taxawee te ñaan daara ji itam mbooleem liñ ci mëbët lépp سمبر ديفال نيو واتي بركم الخديم قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى هاج قصائدي يا قلب كل من له سعادة ولن قاد الأمن لا إله إلا الله ngir ngeen di jot vidéo yi am solo TV da ngay bës bin ñu bind sabonné ba kolos bi. Darou TV la première chaîne qui valorise la vie et l'œuvre de mam Cheikh ibrahim Fall.